Ousmane Sonko faw assemblée nationale jot càkkuteefu ministère gi yor wàllub yoon maître Djibril Warne ca la pencum ndaw réew mi am sañ-sañ càmbar dossier Ousmane Sonko ba mun koo xañ mbalaanu kirlaayam ngir yoon mun koo déglu ca la ko aji sar tuumaal mi wax ne njiital Pastef dafa sey ak moom ci lu àndut ak coobareem maanaam siif yéena kaabi du Sud Quotidien assemblée nationale soobu na ci saytu ga maanaam liggéey ga door na jëm ci teggi mbalaanu kiirlaayu Ousmane Sonko yéena kaabi di Le Quotidien ne lu jëm ci tuumay aji sar yëkkati teg ko ci ndoddu Ousmane Sonko ba tey pënd mi jébal na mbir yi juge bu huitième cabinet le quotidien moom député Ousmane Sonko doonatul ne section de recherche moo koy déglu waaye lu aju ci immunité parlementaire am maanaam balaanu kirlaayam ëllëg ak jàmm ci assemblée nationale fas gindi askan wi géne cabinet procédure googule maanaam mode fast am na ca géne cabinet ci lu gaaw assemblée nationale bugg jublu ci mbirum Ousmane Sonko géne cabinet ay militant Pastef bu ñu deful ndànk lu tar moo massage ba ngir mun faa dampu yéenekaay bi daal di fàttali ne bépp député gu am jafe-jafe ci wàllu wér yaram saay boo demee faju ji bu fekkee ne téeméer nga war a fay juróom-ñetti fukk ya assemblée nationale moo la koy gàddul am ci kenn ci député ku dëggal loolu le ne am na fu mu dem faju ji waroon faa fay 80 000 waaye 16 000 la mujjee fay kooke ne jafe-jafe Ousmane Sonko am moo di ne benn yoon assemblée nationale saay su ne Ousmane Sonko ma ngay daw système bi bañ na ko sax du naan ne assemblée nationale moo ko jënd yéenekaay bi ndox mu bari la ñu Bignona am ña fa doon ñaxtu yéen a cabinet am na fa ñaar ñu ca jëlee gaañu gaañu yu ndaw ma taal pano ya songu fa ay bitik ba a cabinet 24 na a bëccëg bu tar démb ca Bignona élèves ya ne woon ca commune ba bu 9 jotee la ñu tàqalikook salle ya wutali mbedd ma maanaam dem ca rond point Émile Badiane armée ba mujjee wàcc ngir giifal mbir ya a cabinet jigéen ña fekk baax ca Bignona ne masla jeex na seen càkkuteef bokk na ci ñu may Afia Ousmane Ousmane Sonko yéenekaay bi di la témoin ne gannaaw jàmmaarloo gi amoon fii ci Ndakaaru ci diggante ay farandoo Ousmane Sonko takk der yi laaj bi samp mooy ndax dina jolliwaatam déet ci biir yéenekaay bi ay ndaw ñu bari àddu nañu xam ne xel xalaatul ñu deltu ginnaaw ne dàq ba wàccaat ci mbedd mi yéenekaay bi ne lu koy firndeel bokk na ci ca cité góor gi ba Ousmane Sonko dëkk ba ca sikaab mbir yi gi fagul mbinjoo na wax noppi tàng jër la def démb waa di toroxal seen nit ya ñu jàpp yéenekaay mujjee ni mbirum Karim Wade tëddee ba ci Khalifa Sall mouvement Y'en a marre ak Aminata Lô Dieng ba ci Moustapha Guirassy ña nga woon ca kër Ousmane Sonko seen càkkuteef bokk na ci ngir ñu may Afia njiital Pastef yéen a kaabidi li quotidien bu weesoo ñaxtu ay farando Ousmane Sonko Babacar Dione xew altine gi ñu weesu ci beddu Ndakaaru wone na ne askan dañoo guuxoon seen mer xaar Mamadou Albert ne lu wértéwoor mooy ndaw ñi fippu nañu am na sax ñu jóg ñaxtu te Ousmane Sonko taxut a kaabidi l'exclusif ne enquête ba ñu réew mi Macky Sall set na ca wecc yéen cabinet yëgul tinul ndax booba tey ay nitam def leen a noppiloo kenn àdduwu ci ci biir yéen cabinet Seybani Sougou di juriste xam le ci réew mi ñu ne tuumal nit def yomb lool Thierno Bocoum jiital agir xam le saay bu réew mi amee jafe-jafe ci wàllu démocratie loxo procureur génnu ci taskatu xibaar bi di Daouda Mine ne li xew ci dossier Ousmane Sonko ak Adji lenn rek la askan yu sàkku maanaam na ci yoon def liggéeyam don demoon doon damp ji yaramam soxna sa moom salon ba jëkkër ja wax na xamle ne keroog bu fa Ousmane Sonko nekkee ak Adji Sarr déggul benn bruit maanaam amul lenn lu yëngu te amul kenn ku woote wàllu yéen a cabinet ci jamono ji nga xamante ne coolaa ngi ne cobboy ci diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr borom salon ba di Ndeye Khady Ndiaye fekkeewul ndax newu fa woon yéen a cabinet ka fa ne woon di Mamba doonoon ñaareelu masseuse maanaam moo feggowoon ak Adji don doon damp Ousmane Sonko Mamba ne am na ci jamono joo xamante ne génn na fa mu ne woon dem bàyyi fa Ousmane Sonko ak Adji Sarr dong yéen enquête xëy duñu enquêtal ci salon de massage yi xëy sampap laaj ne yooyu les salon de massage ndax fu ñuy fajoo la wala boog fu ñuy wutee bànneex yéene kabidi direct news xëy duñu fàttali ndem si yàlla Cheikh Anta Diop mu làqoo ba tey toll na ci fanweeri at ak ñeent yéene kabi gis na tey xam-xamu Cheikh Anta maanaam li mu fi bindi bàyyi jàngale wuñ ko benn yoon ci suñu école yi bu weesoo université Cheikh Anta Diop gañ ko duppee direct news wutali dëkk cosaanam di ceytu yéene kabine dëkk la gu bari jafe-jafe lool ndax ñàkkum jumtukaay la ca waroon te nguur gi waroon ko amal wala def ko ca ceytu ba sigil wala boog sargal Cheikh Anta Diop moom lañ fa gisul yéena kaa bi di laas gis na ci jamono ji coronavirus gi ma ngay gën di law ci réew mi ma ngay gën di def musiba ndax ci xayma Sénégal toll na ci juróom-ñaari téeméeri doomi aadama yu faatu ci coronavirus yéena kaa bi di la Soleil xëy wutali Casamance ak opération gu yaatu goo xamante ne armée bi mu ngi ko fay amal ay fan a ngi nii yéena kaa bi ci lu toll ci ñeenti bërëb yoo xamante ne ay base rebelle lañu woon maanaam fa way fippu ya yooyu le bi na ci loxo bokk na ci base ba fekk na ci ay ngànnaay loxo base bu busolom ak bu ma bi siikun yéene cabinet siikun googule lu ëpp ñaar fukki dëkk ñoo fa jóge woon daw làqu ji ndax fitna ga amoon Le Soleil ne armée ba dugg na fa ga ña fa ne woon ci way fipp ñu jëlee leen fa yéene cabinet ci googule opération armée ba jot na fa taal ay tool yu bari ci yamba gañ ko toppee ca Dagana foofe ca Waalo di seeni mbeng takk der teg nañu loxo ay jege ñaaleem yéene koy wër fu ne ba léegi mënaguñ koo gis waaye ci mujjantel